salaamaaleykum mbokku Sénégal salaamaaleykum mbokku internet yi maa ngi nuyu ku ci nekk sa tur sa sant di leen na ngeen dal jàmm sur ma chaîne YouTube Wes comme ni ñu koy faral defee chaque fois. gars yi tey balaa may def li nga xam ne moom mooy bi dama bëgg a rappeler sénégalais yi benn affaire quoi pour ñu seen bopp. Wes du yonent Wes du wëlliw Wes dara Wes Show être la bu am li nga xam ne moom moo di ay ay sentiment bu am li nga xam ne moom moo di ay réaction bu am li nga xam ni moo di lépp. képp koo xam ne yàgg nga seetaan Wes Show xam nga ne Wes Show nëbbul dara am na gars yi bëri ne ma wan nga ma sa vrai visage sama vrai visage moo nekk nii bi nga xam ne moom ngeen di gis chaque jour lépp lu may def c'est naturel émission bu nar a génn day génn su ma naree mer damay mar su ma naree kontaan damay kontaan su ma naree saaga damay saaga saaga si YouTube parce que dama ko jël sama décision te yenn yi du ko ñaaxal sama bopp sama fayda si li nga xam moo di am yoo xam ni su ma dalee si li nga xam ni moom moo di Instagram là je peux su fekkee dafa am émotion mer boo xam ne ñëw naa parce que nit rek la bu ma nit saaga dama koy saaga kooku il faut mu leer sénégalais kon ñi nga xam ne ñëpp nee nañ man dama leen bettoon yaakaaruñu woon si lii da di wax lu leen neex rek commentaire yooyu moo leen neex pour nit ñi may leen benn laaj mais c'est pas parce que wax dëgg fa yàlla dama leen bett parce que ku yàgg suivre Wes ku yàgg topp Wes xam nga ne Wes wax dëgg fa yàlla lu a wax mu nar a génn si génn moom da koy wax jour defee loo xam ni moo di Wes Show sàcc na Wes Show violé na nit Wes Show dóor na nit wala weesoow góor jigéen la wala weesoow franc-maçon la alors là dinaa rusa jàkkaarloog li nga xam ni moom moo di sénégalais wax ak ñoom mais weesoow saaga na nday imaam yi dañuy saaga nday képp koo xam ni pop am boo xam ñi nga xam moom lañ gën a respecté dañuy saaga nday te émotion nag dafa am moment bi nga xam ne foofu lañ ma toll ma saaga nday moment boobu man rek maa ko xam kon de ce ngir yàlla yenn débat yi mën nañ ko bàyyi kaa pour jëm àgg fi nga jëm dafa laaj sacrifice bul dox pour li ngay dox mën na dox faa nga nekk ci bul boog si ñu yaakaar ci sacrifice su iblis loo foog yow sa bopp mën nga nekk sacrifice su nit def sacrifice gars yi tey ñu ñëw wax si li nga xam moom moo di ñaari cas rapidement dañu ñëw wax si li nga xam moo di confrontation premier épisode bi deuxième épisode bi lan la indi lan la créé biir Sénégal deuxième point bi dañuy wax si li nga xam ni moom moo di top cas signalé woon naa leen li nga xam ne moom moo di Top Cas 221 si groupe ne woon naa la am na ay groupe yoo xam ne jigéen rek ñoo fa nekk defuñu dara lu dul dem si li nga xam moom moo di YouTube nit ñi di jéem a ruube di jéem a yàqal man moom j'ai été victime de ça naa wax mais man damaa faalewul loolu moo tax chaque fois mu ñëwoon di moo jigéen yooyu noonu di dal li nga xam ni moom moo di association de malfaiteurs yi nga xam ni ñoom la ñuy def lépp lu ñu wax nag du début à la fin la majeure partie ay fen lañ parce que man mii tuumaal nañ loo xam ne dama nekk di ree fekk ne naa ne carrément ni dañuy fen du début à loolu mooy li nga xam ni moom laa ñëwee pour waxtaan ak yéen nañu commencer rapidement si li nga xam ni moom moo di confrontation premier épisode bi neex na man personnellement j'ai suivi j'ai apprécié wax dëgg fa yàlla parce que affaire bi dawoon na normalement plateau bi naayisoon na émission bi entrée même bu fekkee y avait un peu de désordre parce que c'est normal ñi ñu invité la parce que du ñëpp ngay invité am li nga xam moom moo di plateau boo xam ni yaa ma ñi ñu invité moo tax plateau mais néanmoins nekkoon na benn émission boo xam ni reetaanlu na nekkoon na benn émission boo xam ni ñëpp seetaan nañ ko même man personnellement je répète nekkoon na émission boo xam ni neexoon na ma li ma si xawoon déplorer chaque fois mooy maanaam le fekk que nit ñi di woote naan dañuy joxe xaalis di jaay jomb ñaaw te wax dëgg fa yàlla boo demee seen gaale dépense bu mat sax duñ ko joxe maanaam am na ñu si bëri la majeure partie seen yaay sax xooluñu leen a riche Sénégal laa la wax de a riche si Europe yàlla di jaay jomb ñu si bëri laa la wax de seen yaay sax xooluñu leen seen famille sax ñu leen boo demee seen kër da ngay yërëm waa këram kër googu noonu te pourtant ñoom ñoo gën a mën a nekk jomb ñaaw di joxe xaalis si li nga xam moo di ay télé di jéem a jaay ne dañuy joxe ay don ñii di créer benn genre trafiquant de personnalité yooyu ñoo am li nga xam ne moom moo di Sénégal lan moo waral loolu nag gaay dafa am solo boo xam moom moo waral loolu pauvre parce que da gis tey jii nii sénégalais ñun Sénégal dañ nekk benn dëkk bu pauvre waaw boo nekkee benn dëkk bu pauvre c'est facile nga enrichir si li nga xam ni moom moo di dëkk bu pauvre boobu noonu parce que ñoom instant yi nii benn stratégie la ñu jël mooy indi li nga xam ni moom moo di divertissement parce que loolu rek moo des Sénégal la majeure partie sénégalais boo waxee dañu naan dimbali ñu ñun dañoo bëgg ah anti stress dañu bëgg a reetaan stress bi fi nekk patati patata amul benn dëkk boo ëpp stress li nga xam ni moom moo di Europe Sénégal ëppul stress Europe de te pourtant européens yi sénégalais fii nii dañuy jug xëy dem liggéey képp koo xam ne yaa ngi Europe boo liggéeyul doo tekki. doo liyul doo tax xanaa nga dem jaay drogue wala nga dem jaay leneen kon ça veut dire ni ñoom mécanisme moom la xam xam nañu ni loolu la ñu soxla mooy maanaam ñu leen di reetaanloo ñu leen di divertir ñu leen di ñu leen di abrutir ñoom ñuy kontaan parce que xam nañ ni moom mooy voie bi gën a rapide pour tekki comme ni ko Dip waxee en tout cas beaucoup de personnes ñu ngi koy dal si loolu mais waxante dëgg rek Dip lu mu wax si li nga xam ni moom moo di émission ma génération li mu wax du début à la fin c' la vérité Sénégal li nga xam ni moom la ñuy gën a proposé nit ñi soit ñu mband soit ñu nekk foofu noonu di def ay ay ay bongo soit ñu nekk foofu di def ay téléfilm yoo xam ni mooy loolu seulement pour divertir mais rien d' original rien de créativité rien des fois ngay gis li nga xam ni moom moo di ay ay ay jàkkaarloo nga xam ni c'est important même des confrontation man personnellement dama jàpp ni am na importance ma xàmmee yenn nit yi si laay toog man ni nit ki bu am vie boo am vie boole li nga xam ni moom moom moo leen seen vie d'acting ak seen vie personnelle après ñu ñun ñu ñu ñu différencier leen te ñoom ñoo ñekk ñi nga xam ni ñoom ñooy collé ñaari tur yooyu noonu deuxième épisode bi bu mu ñëwee nag si le pire bi commencé quoi mooy maanaam ut ngeen buzz am ngeen buzz ñëpp seetaan nañ leen nice na fallait pas ngeen ñëw di ñu sonalaat si même épisode parce que nañu waxan dëgg lépp loo xam ne def ngeen ko mu nice nga ñëw di ko defaat mu bëgg a nekk benn continuité day dem ba soof loolu mooy li nga xam moom moo dal deuxième épisode bi te deuxième épisode boo lay xoolee y avait pas d'organisation parce que c'était improvisé nekkul loo xam ne dañ ko préparé comme ni ñu préparé woon premier épisode premier épisode dañ ko préparé ah. même coup de fil yi nga xam ne ñoom ñoo dugg foofu noonu c'était bien préparé xamoon nañ ñan ñoo war a woote xamoon nañ lan la ñu waroon wax bu ñu wootee parce que fallait que ñu créer li nga xam ni moom moo di buzz boobu noonu attention Bijou Ngoné ñëpp foog ni mooy mais amul nit bu ko gën nekk crack biir Sénégal en tant que animatrice Bijou Ngoné bopp bi moo baax xam na ñu muy taale xam na nu muy fayee Bijou Ngoné la majeure partie de personnes yi nga xam ne def nañ njombe biir Sénégal nee naa leen Bijou Ngoné moo leen raxas ba ñu set kon ça veut dire que nekkul nit boo xam ni elle ne pas influente elle est très très très influente mën na jaay nit tey suba mën na la fay Bijou Ngoné mën na la fay saa si mën na la jaay dafa am ñoo xam ne yàlla moo leen may noonu bu ñu waxee si nit même nit kooku noonu amul talent wala nit kooku amul dara nit kooku day tàkk bu ñu waxul si nit kooku noonu nit ki du avancé maanaam nit ki du am visibilité bi nga xam ni moom la soxla bu demoon si cinquante médias am li nga xam ni moom moo di visibilité te ki nga xam ni moom moo di bu mu defee li nga xam ni moom moo di premier épisode moom moo soxla woon li nga xam ni moom moo di ñoom marionnette yooyu dix problème Pawlish Mbaye ak li nga xam moom moo di Ouzin Keita bi ñu ñëwee ba mu am li nga xam ni am na ko jox na leen li nga xam moo di ñamal na leen wan ni carrément yéen da ngeen bës jay na leen ba ñu mu indi lawaat leen si li nga xam ni moom moo di deuxième épisode boo xoolee deuxième épisode bi am na loo xam ni sañu ko woon def si premier épisode bi mooy bu mu yuuxoo mere ne gars yi ku munul def da ngay génn sama émission premier épisode bi amuloon sañ-sañu def ko c'est ça qu'on marketing c'est ça qu'on appelle stratégie loolu la Bijou Ngoné am te kenn mënu ci li nga xam ni moo di dara tant que ñu ngi bàyyi muy continuer nii day continuer man naa wax dëgg fa je la parce que mu ngi am li nga xam ni moom la sénégalais soxla mooy génnee stress loolu la mën a def parce que yéen yéen ko laaj yéen sénégalais yi du Bijou Ngoné de yéen yéen a ko laaj yéen a bëgg def seen bopp ni instant yi dëkk bi métti na la meilleure solution mooy ñuy mband ñuy reetaan ñuy seetaan série yoo xam ni waxu caga a a bett si lépp parce que de pire en pire lay def moom chaque jour bu ñëwee wane beneen ne xeexoon na ko man personnellement ma nekkoon moom toog biir télé national nga xam ne moo ëpp buzz émission bi moo ëpp buzz lépp loo xam ne def nga ko foofu nga waroon profito lancer li nga xam ne moo di say message xaalis bi ñu lay duunal noonu xaalis bi lay jox noon nga ne leen carrément xaalis bi de mën ngeen ma si jox mën naa cité ak tout mais reste bi nii wala parti bi nii bëgg naa mu dem si li nga xam moom moo di prisonniers yi mooy maanaam jëf benn association boo xam nit ñi dinañ dem bale li nga xam moom moo di prison bi fobere li nga xam moom moo di prison bi peinture li nga xam ni moom moo di prison bi pour ñi fa nekk wala nga ne non xaalis bi bëgg naa ko jàppale ñi nga xam ni famille bi nga xam ni 480 personnes mort lañ parce que dañ demoon pour dimbali seen i wayjur bëggoon naa même bu fekkee ku si nekk 10 000 nga ko jox nga ñëw nga demaat wax li nga xam ne moo di mbënd mi Sénégal gis nañ li fa xewoon mbënd mi famille sinistré yu bëri foofu noonu ñaax nañu nga dem nga jàppale ñooñu parce que ñooñu nga fi yàgg xeexal tey bu ñu la gisee ngay encaissé xaalis di noppi on savait que ni fi nga nekk noonu am t'es pas à l'aise émission boobu noonu yow nga budde parce que da bëgg a woon sénégalais ni émission bi mooy traité yow soxla nga émission parce que xaalis bi nga doon gis c'est ça quoi en fait loolu moo xew lii mooy li nga xam moom moo di Sénégal léegi nag indi nañ beneen nit boo xam ne dañ ko bëgg a def comme beneen nit ba nekk fële ah ñëw ne kii may na xaalis ñu médiatiser ko moom tamit mu am benn genre tour parce que Sénégal loolu la da ngay investir da jël un million nga xëpp ko si li nga xam ne moom moo di sénégalais yi après nit ñi ne la tekki nga nit ñi di di la publier ngay def ay business ngay am business am li nga xam moom moo di link ba nga tekk ci kaw sénégalais yi moo ma delluwaat ne leen carrément ne Sénégal pour nga tekk fa il faut nga def business seen kaw parce que dëkk bu pauvre moo gën a yomb enrichi en fait c'est la même chose li nga xam ni moom la Kim Kardashian def nekkoon na doom boo xam ni nekkuloon famille bu pauvre mais bëggoon na tekki bëggoon na siiw bëggoon na am li nga xam ni moo yoonam mu def li nga xam ni moom moo di topp mu di sextape bu mu defee sextape ñëpp xam ko mu nekk Kenny West mu bare Kenny West xam nga mu créé li nga xam moom moo di empiram empiram nan la ko créé ak télé parce que ñoom États-Unis waa États-Unis ñoo ko may xaalis ñoo ko topp ñoo ko may business te pourtant moom nekkuloon benn nit boo xam ni moom moo nekk di xew Sénégal loolu ñu bëgg a moo tax yenn personnages yi ngeen leen di gis ñuy commencé may xaalis pour na fi tur diw diw diw am na fi ko ci sénégalais dañ ko koy jox parce que lu mu métti métti may na ko si nekk li nga xam moom moo ne benn 500 wala benn 1000 francs c'est ça nekk di xew te Bijou Ngoné loolu la nekk di may li nga xam moom moo di Sénégal dafa nekk di créer benn réseau boo xam ni ku nekk day influent su boobaa moom si boppam mu mel ni genre Oprah wala mu mel ni genre yaayu Kim Kardashian noonu la demee moom moo nekk di créer li nga xam ni moom moo di problème yëpp ay 10 000 problèmes ay Pawlish Mbaye ay Ouzin Keita ay nante lañ ñëpp ay ngàkk ils sont utilisés Pawlish sax au moins am na benn genre franchise boo xam da koy wax ni moom dof la waxu dof lay wax télé yee ko invité ñoom ñoo am seen ñàkk fayda di ko invité watati watata da leen koy wax carrément ñu koy dégg Ouzin Keita moom xamul sax li xew nante mi nag moom wax dëgg fa la mooy loolu bu ko neexee nag mu defal ma vidéo saaga mais dëgg laa la wax bu ñu paree solo nañ dem si li nga xam moom moo di top cas 221 gis nga ñi nga xam ne benn group la defoon naa sam benn wax naa ne am na ay groupe jigéen yoo xam ni la mais li ñuy def mooy toog seen Facebook parce que man dama yor infiltré fu ne man nee naa dama yor infiltré fu ne ba si 2STV dama fa am infiltré xanaa boobu gën a dee fu nekk Sénégal am naa infiltré boo xam ne lu ma soxla foofu dama koy am moo tax des fois gars yi bu sos damay ree te chaque fois lu ma wax samay vidéo ku ñemee mu dem toog samay vidéo benn par benn mu xool lu ma mënti wax sama vidéo day feeñ par force chaque jour ngeen gis ko parce que loolu mooy li nga xam ni moom moo di un homme visionnaire ba pare am li nga xam moom moo di ay espion fu ne ma dangereux damay kaañ rek mais non am naa espion fu ne nekk naa nit koo xam ni wax dëgg fa yàlla lu ma leen wax rek da ngeen koy gis si li nga xam moom moo di vidéo yi waxoon naa leen fi am na benn groupe boo xam ne mu ngi formé wu groupe boo xam ne dafa ñëw seulement pour yàqal li nga xam moom nit ñi la meilleure façon bu ñu ko defee mooy nit bu am ampleur koo xam ne nit ñi jox nañ ko cër koo xam ne ñaa ngi koy suivre dañuy dem si li nga xam ne moo di chaîne YouTube am a indi li nga xam ne benn mouvement mu benn ay commentaire négatif comme ça ñëpp ñoo xam ni ñëw nañu dañuy def li nga xam ni moom moo di commentaire négatif parce que jigéen moo mel noonu la majeure partie jigéen bu góor bu gisee benn rek day ñëw commenté ànd ak moom parce que dafa am benn genre link bu mu bëgg a créer foofu noonu maanaam nekkatul c'est c'est tey jii nii su ma nekkee góor yàlla gis benn jigéen bu commenté benn affaire pour am benn genre mel ni respect wala benn genre ñu ku kooku faale la damay loo xam ni loolu la xale bu jigéen bi di commenté quoi et c'est dangereux loolu moo nekk li nga xam ni moom moo dangereux te nañuy ti carrément li nga xam moom moo di complot médiatique yi am na benn nit boo xam ne muy créer benn genre lifestyle muy créer benn genre li nga xam ni moom moo di euh, téléréalité c'était ça son but en fait lekkaat xaalis si li nga xam ni moom moo di kaw sénégalais te man maa leen ko wax sénégalais ñoo koy defloo li nga xam ni moom lay wax chaque fois tey mën naa ñëw ne la milliardaire laa te du ba milliardaire mais ëllëg si biir lu leer laa la wax de yéen yéen a may def milliardaire lu leer laa leen wax yéen yéen may def milliardaire parce que yéen yéen a comprendre li nga xam moo di business bi te li ma si metti mooy beaucoup de nante sénégalais moo bëri nante mais des fois dafa am lu moo leen loolu li nga xam ni moom moo di vidéo bi euh, maa ngi masawu Pape Djibril Fall parce que temps yi moom lañ jël di ko dal maa ngi koy masaw jël nañ fa fii jël nañ fi ku nekk saaga nañ fii dugg nañ fii inventé nañ fii whatever maa ngi lay masaw gars yi vidéo bi loolu la woon Lor Wes la woon ak yéen wasalaam man ragal na fu ñu jëm ndax adduna bi amatul innocent ñëppay coupable banaliser sexe drug léegi góor ak jigéen amatul ku seet sa bopp réer nga fan ngay seet sa bopp ba su penc sit adduna am